jullit munoo ko tëj munoo tëj julit julit soo ko tëjee nga dugal ko ci biir kaso mu am temps pour mun a jaamu yàlla pour mun a liir alxuraan soo ko reyee maanaam soo ko jëlee rey ko mu dem ci bàmmeel xaar yërmande suñu borom kon munoo tëj julit ñun li ñu amal ci dëkk bi dëkk bi ñun ñoo koy defar te suñu borom subhanahu wa taala moo sant ñu defar dëkk bi état ëppale wuñu ci kenn ëppale wuñu ci dëkk ba ñuy tuumaal ñooñu dañuy tass dëkk ben léegi ñu ñuy tuumal terroriste na ngeen ñu expliquer rek terroriste moy lan terroriste moy lan ak nan lay mel ñooñu li ñuy jëfandikoo imam Aliou Ndaw ci biir terrain la dag may fa école française ni nga xamne dañ leen di tuumal terroriste ñom suñu fekke école française dañ koy toj lolu jëlal lolu rek ci terrain la dag juma ji ak école bi ñoo taxalo nit ñi di joge ci daara ji di dem di jàngi ci école française bi di wàcc di ñëwaat ci daara ji non yaakaar munoo ko am ñun su fekkee atte yi suñu borom la alxuraan ak na dinañ am yaakaar mais atte yi moom maanaam nit su fekkee moom mu ngi ci pas-pasam ak conscience am ki xam ne moom mooy atte moom mooy seen diggante moom ak boromam. ban preuve ñoom teguñ ci suñu loxo dara lan nañ wax lan nañ wax ne moom nañ jàppee imaam Aliou Ndao ba tey waxuñ la ko ba tey jii waxuñ lenn nañ jàppee imaam Aliou Ndao amul lenn loo xam ne mën nañ ne lii moo tax ñu jàpp imaam Aliou ndaw beneen bi ci des mooy lii du gën cim réew ñun ñëpp ay jullit nañ bi ci des tamit ñun ñëpp ci réew mi nañu dëkk te ñun ñëpp dañu soxla luy jagal réew mi te tooñ baaxut waxuma la sax waxuma la sax ñu bokkul ak imaam Ali Ndaw ñu bokkul ak imaam Ali Ndaw diina waaye ñu bokkul ak moom diina sax ñëpp d'accord nañ ne imaam Aliyu Ndaw mazlumun ku ñu tooñ la nañu ko libéré bàyyi ko mu delluwaat ci daaraam nañu ko libéré bàyyiwaat ko mu delluwaat ci jàkkaam nañu ko libéré bàyyiwaat ko mu delluwaat ci njabootam loolu mooy suñu jàmm ñun ñëpp te loolu la ñaan yàlla réew mi ñaanuñ fi musiba kenn du juddoon cim réew yaroo fa màgge fa am fa teraanga di yéene réew ma musiba mukk du am yarul kenn ci lenn lu dul jàmm yarul kenn ci lenn lu dul ak dal bis dina ñëw ñu attewaat lii bis dina ñëw ñu attewaat lii liñ koy torturé ci kaso bi jégg na dayo man maa ko seeti mu futti mbaxanaam jox ma ma lamb ko mu tàng jër ma lamb ko mu tàng jër ci kilifa gu teen imaam Ali Ndaw kenn nettaliwu ma ñoo ko fekk bi ci desit nag du ñuy cuune te du ñuy dof imaam Ali Ndaw yarul kenn ci lii ñu koy tuumaal muy terrorisme